loi d'amnistie yóbbu nañ ko assemblée nationale bientôt procédure bi na enclenché wu mais opposition bi nee nañu. kan ci opposition moo ko wax. presque ñëpp. noo da ngay wax. presque ñëpp. man de xaaral rek ma wax la. non waxal rek. xaaral rek ma wax la. un bénéficiaire d'une loi d'amnistie bu ne bu bu bu c'est-à-dire dañ ne. dañuy def loi d'amnistie xaaral xaaral xol ba waaw bénéficiaire bi man bi ma déggee bi ma déggee déclaration bi su ma juumul waa xaaral kenn la dinaa ci ñëw dañu def loi d'amnistie ñu ne Ousmane Sonko day génn Bassirou yi génn ñu réconcilier ñu pardon ñooñu ca ña leen di waxal nee nañu soxlaaw ñu ils ne sont pas intéressés. qui a ñi toutes les voix de Pastef nee nañu soxlaaw ñu ils sont pas intéressés démb Fadilou toog na fii nee na soxlaaw ñu ils sont pas intéressés Macky Sall bu bëggee libérer Ousmane Sonko xam na lu mu koy libérer opposition bi gisuma ku ci taxaw ne loi si bi intéressé na ko. opposition ñi nga wax rek. Samba si. ñi nga wax di ministre dans le gouvernement. nee na président. loolu foofu euh, ngay xamee ne comment comment un homme démocrate xam nga sàmm si. mënul nangul waa dem si yendoo ba léegi wala fanaan nekk ministre Macky Sall la ah, ne. mënul nangul waa dem si. pour xam ne liberté de de ci seen cas ça n'a rien à voir avec un engagement politique am na ñu jàpp ne sax. pourquoi pas cette loi d'amnistie Macky Sall daf leen di daf leen daf leen trahir Farba kan moo am finalement intérêt ci loi d'amnistie pourquoi président il insiste pour faire voter une loi d'amnistie pour accorder le pardon à des gens qui disent que bëgguñu pardon même les familles des victimes nee nañ bëgguñu pardon booy xam nga po Sénégal du Macky rek du Ousmane Sonko rek du Bassirou Diomaye Faye rek d'accord wala wala du dëkk Sénégal bi nga xam ne ñëpp a ko bokk Sénégal yëpp a ko bokk c'est pas seulement Macky Sall c'est pas seulement Ousmane Sonko c'est pas seulement Bassirou Diomaye Faye c'est 18 millions Sénégalais ak li fi xew ci jaar mënul woote waa dernier dialogue mu nekk un homme de dialogue xam nga ne il a dialogué partout li fi xew lu bëri xew na dialogue ko ko jur dialogue moo ko jur mënul boobu yor boobu posture nekk un chef de l'État ko xam ne jiite na réew mi wax dëgg yàlla douze ans mu def fii lu kenn deful te loolu jaratul muy wax ci wàllu bilan ndax sénégalais ku ne doy na. mais l'opinion bouillonne de cette loi d'amnistie. on pour un chef d'État un chef d'État un chef président de la république d'un pays suy def dara acte bi muy posé il a des raisons qu'il peut communiquer il des raisons qu'il ne peut pas pourquoi parce que jàmm réew mi moo ko gënal lu mu am ci àdduna pour nga jiitee réew te moom tey mënoon naa naan man jiite naa réew mi 12 ans maa ngi dem ëllëg Sénégal sama yoon nekku ci mais bu demee bay xalaat droit amnistie quel que soit ce que man mii man maa gënoon contre fi Ousmane Sonko man et j'ai toujours assumé toujours assumé on n'est par de même partie bokkuñu vision ni idéologie politique dama koy assumé bés bu ne Ousmane Sonko ànduma ci moom ci wàllu politique ànduma ci moom tey ànduma ci moom ëllëg ci wàllu politique je l'assume xam naa ne moom it àndul ci man mais quand un chef d'État pose des actes koo xam ne day dem dans quelques jours day dem te un chef d'État am lu ma mun a communiqué am na loo xam ne ni c'est des régions yoo xam ne mënu koo communiquer c'est pas pour lui ni pour ma Massamba ou ma dem moom pour réew mi def ko jaral lu ne et tamit je te dire une chose est-ce que est-ce que Sénégal Ousmane Sonko rek la wala Macky Sall rek la wala Bassirou Diomaye Faye rek la c'est 18 millions de Sénégalais il y a des te tamit man boo déggee ñi nga xam ne ne actuellement ñu ngi seen biiri kër di am ay ñaareelu jabar di ah, ñaareel foofu waaw du du du mu tudd tur di changer tarika wala di changer eh. de se convertir en l'islam nekk si biti di naan Ousmane Sonko waxul loolu laajuñu ki nga xam ah, jant bi lakk na ko di Ousmane Sonko pour que ne génnam wu ko xam nga am na lu mu xam am lu mu xamul ba tey lu mu xamul lu mu xamul li ma xam lan nga xam am na lu mu xamul waaw mais lu mu xamul yow loo xam loolu <laughs> yow wax lay ne du nekk fii sax mais loo xam far non dama xam ne ne lu mari saa Sagna xamul non c'est-à-dire que euh, Maïmouna douze ans de pouvoir nekk un collaborateur d'un chef d'État te yàlla may la même bu dee ne amoo xel tamit te dofoo war nga xam lu bëri mais lan nga xam ci mbir moom Guy Marius Sagna nee na Ousmane Sonko n'est pas lenn rek laa ci manqué Ah. niveau intellectuel mais leneen li ñuy doxalee adduna bi yépp Macky Sall jàngal na ma ko forme na ci te wóor na ma ne am naa ci diplôme. mais Guy Marius nee na Ousmane Sonko waxul d'accord mun naa wax ne moom mun naa wax ne Ousmane Sonko waxul mais dama la ne ñaari mi est-ce que est-ce que Sénégal Ousmane Sonko la rek ak Macky Sall je te je te pose question mooy mun le pays Sénégal est-ce que Ousmane Sonko rek ak Macky non quand même c'est pas possible. mais ils seront bénéficiaires ñoom nee nañu. non non xaaral ma wax la Sénégal bi ñu bokk tey yow mii ci sa bopp. Ah. mën nga ci am sax lu ñuy doxal ni loi d'amnistie te fekk da ci gagner intérêt et alors que doo Ousmane Sonko doo Macky keneen tamit noonu moi je souhaite même je souhaite même des gens comme Barthélémy Diaz qui est maire de la ville de Dakar qui a un dossier au niveau quand même de ce pays mu am ci loi amnistie bi ñu boole ko ci pourquoi pas parce que quand même c'est un Sénégalais nekk un politicien nekk jeune. sonnoon na de. qui a qui a de qui a de l'avenir et encore xam ngeen ne man bu ma taxawee tey di wax li Barthélemy dina am ñu may déglu sax même moom da koy ay rey la koy jàpp te tamit du dara. bu ñu waree xeex suboo ci wàllu politique. vraiment loi d'amnistie bi yitteel na leen. non ma ne non bu ñu waree xeex Barthélemy la <laughs> ma ñu waree xeex suba ci wàllu politique dañuy xeex ba dugg boîte vocale mais su ma waree aw ma xol bu bon.